waa Fanta léegi nan la ñuy def. nan la ñuy def si lan. ah si suñu gan gi lan lan lañ koy toggal terelee ko ko. <laughs> togg lan Mariatu fii kenn togg fi ki aye na toggal boppam. eh ñii bu ma doon dee sax dama hmm. nga bloqué ma sagal loolu bala muy institut woote. takku nga nag. Alaaji Touré man xuloo ma de dama lay laajte rek. bii naruma leen lu dul togg jox sama jëkkër. waaw man ana sa xarit bi ma ñëwee ba tey gisuma. ah Batoor boppam moo doon metti mu dem hôpital. bopp di metti ma koy woo te mënu ma ko jot. est-ce que sampaluñ ko perfusion mu fay téléphone am. xam naa ne def nan ngay def. añ yow Bébé Marlo am nga fit de. naa ne tey moom xiif dinañ leen rey ñuy wër ci fast food yi di yenn fi ñuy gisee fast food mel kay ñu wër miskit ak meew ku lekk ko ñoom ñoo añ waaye ñun ñoo ngi añ bu neex desul. da nga bëgg tey. loolu la mbaa jàmm. Thank <laughs> you.